bu loolu jàllee itam ñoo ngi sant mbokki Sénégal yi nga xam ne saa bu ñu wootee ñu bàyyi seen i yitte ngir fexe ba dëggal suñu kàddu ba fekk suñu ci fi ñu wootee ñoo leen ci sant di leen bu loolu jàllee itam ñoo ngi dolli ay ñaax yoo xam ne ak xëy na ay kàddu yi jaajante rek yoo xam ne day jëm ci ñi jiitu ak ñi ñu jiite eh, kon yàlla dafa dogal ki nga xam ne dafa signé muy ambassadeur muy consul signé ne daa war a dem liggéeyal réewam dañu yebal ko ci ay gox kon moom mu xamee ne loolu responsabilité la alors que lépp lu nga xam ne war na ko appeler rek ci digganteem ak ñi nga xam ne moom mooy seen ndey réew war na koo def kéem lay kàttanam ndax loolu la siñe woon bi muy jógee Sénégal état yebal ko ngir mu taxaw doomu réewam kon muy ambassadeur muy consul lépp lu nga xam ne war na ko ci doomu réewam rek waru cee bàyyi dara lépp lu mu mën rek war na ko def ndax lu mu signé la te nag ci kaw suuf lépp lu nit signé rek. ëllëg suñu borom dana la ko laaj képp ku jiite ay nit daañu laaj ndax yërëmoon nga leen ndax taxawoon nga leen ndax li la waroon si diggante ñoom yaa ngi ko doon def defuloo ko kon loolu rafet nañ njort bu baax nag ci lii ñu gis ndax xëy na mi ngi door a am muy ambassadeur bu nga xam ne bàyyi na ay yitteem yépp xajal nu ci donte calendrier xat na mu xajoonu ba fekk suñu fii tey def jéego bu am solo muy ku ne xam ne ne réew consul carte consulaire am na solo loolu ndax mooy tax ñu mën laa identifier te alors que lu tolloog bu ñu naan ñeenti junne nit ak ñetti junne nit ñu ngi Argentine waxtu bu nekk ay nangami at ñu koy wax te état mun mënut gëm loolu li tax mënu ko gëm nag dëgg la du ñu wax ne am nañ fët de dañuy wax ne njiiti ñoo am fët ndax li tax ñu am fët bi mooy ñoom ñoo war a fekk si defal na consulaire kon bu ñu leen gisut loolu du mën a wér li ñuy mën rek mooy waxtu dañu di wax ne. am na ñett téeméer ñetti junne nit am na ñaari junne nit alors que li tax nag loolu mën a am bokk na ci jéego bi nga xam ne tey madame ambassadeur dox na ko tey muy bu di tàmbali ñu lay ñaan nag eh, xëy na amoo jot waaye ñu lay ñaan donte bokkul ci sa liggéey itam loo man rek ci état bi ngir ñu yebal ay commission yoo xam ne daa daañu fexee ba waxtu waxtu yu mu fi ñëw xëy na Sénégal yi ñoom ñëpp bëgg nañoo am consulaire waaye xëy na waxtu bi eh, nit it boo boo boo àndee moom danga koy comprendre rek ndax yow mi jiitu yaay sonn saa su xëy na waxtu waxtu liggéey la ci ñoom ba ñu ci bari xëy na mënuñoo dëgg seen liggéey xëy na ñeen ñi tam fañ nekk sore na mën naa am sax yëguwuñ ñëw na fi donte ñëw na fi fañ nekk sore na ba mënuñoo ñëw def ci consulaire kon ñoo lay ñaan ci sa disponibilité ak sa yaatal loo mën rek ci ay jéego nga def ko ba ay commission man fii ñëwaat mën a wër réew mi ba mu daj ba fépp foo xam doomu Sénégal nekk na fa ñu fexe ba mu am carte consulaire ndax mooy tax état bi xam ne tey Sénégalais yi kon alors que li ñu ne wax naan ñetti junni nit ñu ngi Argentine loolu mu doon lu loo xam dañ ci teg seen bët ba li nga xam ne sunu àq la di suñu wareef ci état Sénégal ñu mën koo am loolu nag àq ak wareef la bu ñu koy wax mooy lépp lu nga xam ne kayit la boo xam ne danga nga ko war fekk doomu Sénégal fa nekk jox ko ko loolu mooy àq sénégalais ci kilifaam muy ambassadeur am wala muy état am bu loolu jàllee Sénégal moom kan la war doon mooy ki nga xam ne. day wax ne man sama réew laay liggéeyal waaye du ma xaar sama réew di def ci man du doon nit ku nga xam ne danaan toujours rek sama état laay xaar mu def ci man dara waaye man sama taxawaay mooy man dinaa liggéey ngir sama état kon loolu mooy taxawaayu sénégalais alors que kon loolu lañ amoon ay kàddu yu ñuy wax madame ambassadeur taxawaay bu ñu ci mën rek mu yokk ko bu loolu jàllee tam ñu jël si ci station bi alors que ginnaaw bi ñu rafetlu seen liggéey sant leen. lu tër dem xëy na ay ñaax mënut ñàkk ndax képp kuy dox yow la faaw ñu lay ñaax nga gën a yokk say jéego njiit euh, masuuliya la mooy responsabilité la yow yaa taxaw laaj kàddu askan wi wa ilaa askan wi jiital la kon war nga appeler li nga wax ndax yow yaa wax ne damaa bëgg jiital mbooloo mi dëkk bi yéen la jaajëfal waaye yow nag yaa war a sonn ndax da nga war a sonn mooy yaa taxaw wax ne da nga bëgg jiite mbooloo Sénégal yi. nit na ku ko bëgg jiite da ngay xajoo ay bang-bangam xajoo ay càgganteem ak léppam da koy mën a xajoo ndax looloo tax xëy na ñu jiital la tey ñoom ñi nga jiital xëy na bu fekkoon mat nañ soxlawut kenn di leen jiite nit ñi bu fekkoon kenn ku ne li nga war li la war a def li nga war a def yaa ngi koy def saa xëyee soxlawu ko la jiite mais ñàkk gi ñàkk mat nag ak di juum ak di def loo xam xëy na ci suñu bakkan lañ ko teg ak lu mu ci mën doon rek yow mi taxaw wax ne damaa bëgg a jiite Sénégal ab liggéey rek moo la war nga fexe liggéey ba keroog ngay war a wàcc fa nga nekk keneen toog loolu nag xañ na ne xañ ne yéen a ngi ci sax di ci sonn waaye bu leen ci mës a découragé Sénégal ku ne xam na ne képp ku jiite juróomi Sénégal sax nga ne sonn nga ngir ci doxali ni ñuy doxale ak jëf yi ñuy jëf kon nag ñun suñu kàddu mooy di leen gën a ñaax wax dëgg yàlla suñu xol seet na ci waaye du tere nag ñu ñaax leen ngeen gën a jàppale Sénégal yi leen leen a taxaw ci ci mboolem seen i defin ak li ñu xam dañu ñu war leen koo xamal ak di leen yërëm di leen taxaw di leen tette bu loolu jàll itam ñu jàkkaarloog Sénégal itam wax ak ñoom naka la ñu war a def nit ki ñu jiite dafa am doxin bu war a dox mooy ba nga nekkee magum yàlla jëm mën a lijjanti sa bopp kenn du la wax ne boo xëyee awal mbedd mi ndax bu awee mi di nga jaay wala doo jaay ginnaaw ba nga xamee ne yow yaa ngi xëy di sa bopp di lijjanti sa njaboot war ngaa xam tam say warteef nit ku nekk war ngaa xam say warteef te loolu bokk na ci civilisation mooy xam li nga war def saa boo xëy def ko ana loolu mooy mooy nga ne ci dëkk jàmboo loo xam ne sa réew nunguwuñu nunguwuñu la bàyyi nga def ko nga taxaw ci mbedd mi di ko def ah képp ku def man faa la masa laqee masa ku def li la neex rek dajeg loolu soof nit ku baax day def li mu war a def te yem ca te xam ne nag suñ borom moom yërmaande bari na te fu waay nekk wërsëgu suñ borom dina la ko jox nga organiser sa bopp ba mbedd mi ngay jaay nga xam ne amoo benn droit ci jaay ci réew boo ci nekkee la nga war a jëkk sa koo xam mooy xam droit réew ma la réew ma wax ne bëggu ko nga fexe moytu ko donte mënoo ko bàyyi itam nga daw sa kent lay kàttan yaa ngi laal ci mbedd mi yëkkati nañ la jógal amul benn droit ci xëccoo wala xeex loolu du aw fit ñàkk xam rek la ndax ginnaaw li tax du fit mooy ginnaaw buñ la fitnaalee da ngay mujj sàkku ndimbal ci nit ñi wala nga woo asa asam association ñu dimbali la loolu gor su ne war naa moytu saa boo tooñee yaakaar ko la dimbali loolu moom ku xam nit dëgg-dëgg xam nit ni mu war a mel war naa moytu waxtu wu ne muy tooñ. te su tooñee day sàkk ko dimbali fa mu nekk kon te góor su ne nag war ngaa daw loolu te réewum jàmbur lañ nekk duñu wax ne bu leen jaay ci mbedd mi ndax xëy na amu leen fu ne aw waaye nag war nañoo fexe bay moytu jëru xeex jëru xuloo ndax ku ne xam ne autorité policier kenn warut a xeex moom te ñun ñi ñu yaakaar wax nañ ñu ne ni ngeen bëgg ñu nekk ko nit ñi dina ko nekkee ak ñëpp donte képp ku di nit rek waxuma jullit de képp ku di soo bëggee mu respecté la na ko respecté mooy li la war sa diggante ak moom ci fonk ko ak respecté ko boo ko joxee cër boobu mu delloo la ko police bi ñëw ne la yëkkatil réel daal ne ko jéggalu ko pardonné wu ko daal yëkkati sa bagage dem waaye taxaw di xeex wala di xëccoo loolu ku ne xam ne du yar du teggin du lu war a am kon ñun ñëpp war nañu yaraat suñu bopp xool suñu leen yooyu kàddu nag ay nit ku nekk ak ñoom ah mënoo leen war a mënoo leen a wax li nga leen war a wax eh, njuumte lay doon ci yow te loolu li nu li nu booleeg yéen mooy di wax dëgg bu ngeen wàccee yoon. ñuy waxante ay dëgg rek ndax loolu mooy tax li ñu bëgg ñu mën koo def ñu gën a góorgóorlu ci suñu taxawaay gën a civilisé alors que nekk itam ci kaar yi jël ay tablier yu mag di modeste ay tubaab di yéeg moom ci kaar di xëccoo ak yu bari yoo xam ne ñu ngi koy def te ñun ñëpp xam nañu lu rafet ci dëkk bi fekk ab rang nit taxaw di rang di ay tubaab di ay nit comme yow nga nga jéggi rang ba ñëw jëkkante ñoom dugg ci kaar bi du lu rafet. melokaan bi ñuy war a nekk ci mbedd mi war nañu sol yére yu set war nañu sol yére yi set bu ñu dugg ci kë bu dugg ci baarabu liggéeyukaay yi wala bu ñu dugg ci banque yi sol yére yoo xam ne koo jegeñ xëy na loolu dañuy wax rek nag dañuy fàttali rek nag ndax xëy na sax loolu amut waaye nag dañuy dañuy wax rek ngir ñu koy bàyyi xel di def melokaan bu set boo xam ne di xeeñ parfum di yor melokaan boo xam ne ku la gis daan la respecté waaye nag nga yor melokaan boo xam ne ku la gis ne ah sénégalais yi ñoom civilisé ñu wala nii lañ mel loolu ñëpp war nañ koo daw te dañ xam ne benn sénégalais bu def benn njuumte argentin yi dañuy dañuy wax ne ñëpp noonu lañ mel kon ñun ñëpp war nañu fexee ba ku ci ne xam ne drapeau Sénégal nga yore doo def lu ñaaw doo ko wax bu ñu fexee ba nekk ci nekkin boobu ku ci ne booy génn sa kër rek jàpp ne man Sénégal gépp laa xëyaale ndax su ma defee lu ñaaw ci mbedd mi wala ma def ak ak ak njuumte bis boobu tubaab yi ma fekkee ma def loolu dañ naan Sénégal yi tous sont égalés kon dañ naan Sénégal yëpp nii lañ mel civilisé ñu wala ñoom xamuñu dara ay dof lañ di nga def dara sax ñu rombale jàll nga ne ay ah, ñoom daal amuñu problème fekk dañ naan ah ñi daal jëriñoo toon ndax du ñu nit te loolu boo ko defee tooñaale nga population Sénégal yépp kon alors ko yooyu kàddu mënuñu ko ñàkk bañ a wax ndax nit na koy ànd ak moom ko wax a def ñëpp dañu war a waxante dëgg ndax mooy tax ñu yegg fi war a yegg kon foofu la ñu yemale suñu kàddu bu loolu jàllee nag ñun suñu taxawaay bi nga xam ne war nañu ci suñu seen biir ci suñu diggante muy cas social yi fi am ñun ñun taxaw mukk di wax ne état ñoo ngi sàkk ci yow nga dimbali nu ngir dañoo am ku feebar wala dañu am ku faatu ñu bëgg ko yóbbu Sénégal fas suñu ko yéene fas nañ yéene bu bën fiy jógee bépp cas bu am ci suñu biir ñun ñooy fexe taxaw lijjanti loolu ba mu dem ndax dañoo bokk ci ñu gëm ne dañoo war a liggéeyal suñu réew dara waaye soxlawu ñu laaj suñu réew dara lu dul li nga xam ne nit mënu koo ñàkk citoyen mënu koo ñàkk muy document muy passeport muy carte consulaire comme ni ñu ko waxee war a tànn ndax tey ñuy def élection nga bokk ci réew ñaari junne nit ñetti junne nit nekk ci dëkk ñuy def élection nga war a bokk ci ñuy tànn ndax dafa bokk ci diine nitu diine fu ñuy tànnee ndaw réew war naa xool ki mu yaakaar ne bu toogee ci réew mi dana amal njëriñ waa réew mi mu sànni ko kartam te loolu noonu àqali ju rëy joo xam ne du ñu wax ne ñoo ko def de àq jooju état Sénégal moo ko amee ndax ñoom ñoo waral taxaw seen doomu réew jotal jiim fee ñëw ba xam ni ñu toogee loolu la xëy na mi ngi doog a am kon nag ki ko def ñun ñoo ngi koy sant di ko gërëm ñun daal bokk na ci ñi nga xam ne dañuy wax ne état Sénégal nangam la war la mun ci wàllu ndimbal wala taxaw dañuy wax ne ñun suñu réew fas yéene li ñu ko mënal defal ci social ci ku feebar ci ku wàcc liggéey ñun ñoo ko def ci suñu àll bopp waaye li nga xam ne mënuluñ ko suñu bopp du ñu deñ di wax ne état Sénégal loolu moo nu ko war lool te àqale jum nu yoreel muy moo nu war a wutal passeport moo nu war a fekk fi mu nekk moo nu wutal carte consulaire kon wa axira daawaana an alhamdulillah yàlla na suñu borom yàlla doole dimbali te taxaw nu te sàmm nu te aar nu ba li ñu tax a ñëw ci réew mi yëpp yàlla may na mu yeggale ko jàmm kon jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf